dañ naan wàcc man dama naan jàngi daaw moom xam nga xaalis ma naan jot dama ko daan lekk diine mais ngoon gi nii bu ay quatre heures jotee ñu war a ñibbi université yoon bi ñu dañ daan jënd gerte ci yoon bi noonu dox ba université pour kii ko benn jour nag yàlla nattu ñu jox ci yoon bi rek for mille francs dañ foree mille francs yi maag sa benn ko fekk ma for mille francs yi du mooyu ko ne booy bi mille francs yi doo ci am dërëm maag moom foofu ñu xulloo ba ci mbedd bi moom mu ne damay damay damay départager dañuy départager xaalis bi mu wax jëm kaw jëm su ko dañ koy départager ay xeex lañ mujjee xeex bu metti 1000 francs yi dañ ko mujj ñàkk ndax benn gaañ moo ñëw nangu ko ci ñu perte. mës ngaa redoubler. BFEM deux fois laa ko def sama BFEM dama def première année bi dama def BFEM ma am BFEM mais aw moon moyenne bu bu baax pour jàll. léegi nag sama papa ne ma comme sama moyenne baaxul il faut nga defaat ma defat troisième bu ma année boobu maa def troisième gars di préparer BFEM man may préparer moyenne pour jàll ndax année boobu jàngu moon presque dama doon caaxaan rek. ndax mës nañ laa ramasse. kon nag yàlla def na nag benn yoon lañu mës a dàq ci ramas mais jàppuñu boobu ñaari raaka yi lañ demoon ñu demoon ñaari raaka yi am benn gaayan bu doon tux ñu fu ñu toogoon ñun suñu wet dafa am benn gaayan bu ñu ñëwee policier seen ñu gis ñun comprendre ñu jékki-jékki gis policier yi wàcc seen oto ba ñu wàcc ci oto bi rek di ñu dàq ji ñu it xamuñu lu xew fekk waaj la ñu dàq ñu topp ci di daw ñii daw dugg tas dugg ci ci ci euh, mbaaru kàkk yi fi kàkk yi ne woon man ma jël arrêt 34 bi arrêt kii bi 39 bi noonu jubal ba ñibbi kër ga jour boobu laaj ma sa dàq. mës nga fouiller sa téléphone gel. Euh, non mosuma ko def mosuma man moom nit yëfu jàmbur sama yoon neew ci sama téléphone nag mën naa la ko jox nga fouiller xool la neex mais sama sa téléphone du ma ko lijjanti ndax aw ma ci soxla. mës nga am defet ci xeex. xeex kay moom <laughs> dul kay moom ku ne jaar na ci. yenn saa yi nga ndulli dominé mais parfois dañ lay dominé dominé yàgg dañ maa dominé du may métti sax man moom damaa nekkoon samay samay morom presque man maa ci gënoon nekk xale te xam nga dama bi may nekk booy dama xaw na metti daal bari xadar affaire yooyu wax dama daan xeex rek benn tournoi bu amoon suñu koñ terrain ñu doon fubal am benn gaayan boo xam ne waa ji defe naa dafa ma gaañ ma mer topp ko rek di wax ak moom di ko saaga lu ne ma koy wax boobu maa ngi koy cukk di ne tekk rek waxul dara ñu bàyyi ba benn action mu ñëw ma koy marqué di ko marqué rek waa ji bàyyibal bi bàyyibal bi rek fekk ma fa dafa ma fekk ma ñëw man fekk maa ngi xalaat ci kaw ñëw naan damay dóor rek waa ji rentré ma ni mu ma rentré ma wàcc ci suuf ñu demaat ba ci biir man gars yi na ma génnal ma ne du ma génn damay damay fayu may fubal di fubal di fubal ba ci yàgg ñëw ba ci poto corner bi noonu ma ñëw fa maa ngi moom tension bu metti mu jékki-jékki rek mbëkk ma samay gémmiñ gi toj deret gi satatati muy deux defet deux waa ji defaral ma deux fois ci terrain bi metti ma ñu pare ñu génn ma am ko fay maa ngi jégalu loolu wàcce ma carrément kooku fu ma ko waree sama xool fu ma ko gisee rek sama xel day dem ci loolu sama xol day jeex tàkk mais xam nga man moom boo ma baal ma rek ma baal la tax mënu ma ci woon dara loolu daal métti na ma mooy xeex ma gën nga lekk suuf. waaw ah, defe naa def de mooy ci suuf yooyu noonu nga xam ne day mel ni ay nàkk teere mooy armeer yi am na ay temps ci côté gi noonu fi jàkkaarloog unité 26 ay montagne fa nekkoon. foofu danaan xaw a am mbalit bu ñu daan jóge géej ñi ba ñëw bu ñu bañ ñu jàpp ñi fa lañ daan dem bëri nga ko doyal danaan am nag ay suuf ci suuf yooyu noonu nga xam ne day mel ni genre xeeru suuf yooyu dañuy naan <laughs> dem di mbëq dañ naan xiif yooyu billaay loolu taa dafa garaaw mës ngaa seeti gën ñu dàq la <laughs> ci ëpp nag wax dëgg yàlla li ci ëpp moom damay dañ may apprécier quoi waaw maire yi moom dañ may dañ may apprécier quoi xam nga attitude bi ngay andi rek buñ gisee teggin gi ak yar gi rek dañ lay duñ la dàq quoi peut-être mën nañ bàyyi ba sa ba nga ñibbi ñu ne kii nangam nangam mais duñ la dàq directement. mës nga sàcc lekk si frigo. Pape la mën a jëpp ci loolu daa jël ay fruits def ko ci frigo bi nii ma guddi gi man damaa tàmm ay deux heures du matin heures bu daan jot damay xiif. su ma toogee amul lu ma lekk wala yombul lu ma jëndee lu ma lekk ma yëg ci frigo bi xool ci banaana yeeg wala pomme yeeg yooyu jël lekk bu yeew di rek ma di teg. mës ngaa euh, sama koñ sama grand frère ay amoon na ay xaritam ñooñu samay mag sax ñoom Masal ak Pape Gueye ay vieux <laughs> ñëw kër ga ma daan football ba pare dañuy xam ne ko su ma ñibbee du ma sangu kër ga la ñuy ñëw fekk ma sama néeg jiital ma jàpp dugal ci douche bi ak ak sama serviette ne ma di nga sangu par force. noonu lañ ma daan def li ma def noonu noonu laa def ba tàmm sang ñoom ñoom tàmmuloo sang <laughs> mës nga am rupture di jooy jooy yu metti mësul am moom damay digérer rek xam lu am rek ma xam ne loolu la digérer rek mu jeex mës nañ maa tuumal nag mu metti ma ma jooy ci loolu tuumal yi man moom damaa ragal ko ma tuumal mës nga joxe cadeau Saint-Valentin waaw ñaari yoon laa mës a joxe kàddu Saint-Valentin su ma juumu ñaari yoon benn yoon bi Euh, xam rek ay boo gën a doon booy ay chocolat ak affaire yooyu yooyu laa doon joxe chocolat ay Ferrero Rocher jëndoon benn genre bàgg jënd bàgg jox ko xam nga parfum affaire yooyu def naa boobu beneen bi moom benn benn cadeau la woon bu ma defaroon ay kiw paku maquillage affaire yooyu xam nga expédier ko quoi waaw mais apprécier na kii na affaire yi neex na ko xam nga xam nga affaire yi acte bi moo ci ëpp solo quoi cadeau bi valeur bi peut-être du ci du ci du ci jouer mais acte bi quoi mës nañ laa tendre par quatre. par quatre kay moom def nañ ko ba tàyyi ndax xeex xeex daan xeex rek primaire ay Medoune maag Medoune ay Serigne Gueye ca tëtal moom gars yi xeex rek bu xeexee yu ñu ñëw ñu jàpp ñu tendre par quatre dóor dóor ba ñuy bëgg a dee waaw koy xam nga niñ naan da ngay màgg rek commencé man dama màgg man sama temps booy laa gënoon a kii dama màgg commencé kuul te may nekk booy te désagréable. mës nga nopp gël ba ragal ko koo wax. waaw ah, bien sûr loolu kay am na loolu kay boo nekkee booy da nga ciy jaar nga gis benn gel ni mu neex la nii nga bëgg ko amee mais du ko la ngay ragal ragal dem ñu wàññi la wala mel noonu donc xam nga yenn saa nga dem jaar affaire yooyu commencé dugg di xam nga naan non booy bi daf la lii daf la laa daf la kii xam nga noonu ngay def daal ba xaw am dara mais bu dul loolu moom doo ko mës a wax loolu moom ñëpp jaar ci. mës nga xëccoo xuuru xar tabaski. yii mukk xuru xar kay moom dagg sànni tépp sànni xuru xar pour lan lan lañ koy doyee lu ñu yokk lan lan la ñuy yokkal ñu koy doyee bu doon sax dañuy yokkal sax ñu ne waaw <laughs> bu doon danga koy lekk sax mu am lu la yokkal ci sa yaram sax ñu ne waaw mais naata kan faut arrêter <laughs>